asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokki Sénégal mbokki àddina mbokki département de Tivaouane yëpp ak mbokki commune de Tivaouane yëpp ñu ngi leen di yëgal mbay mi nga xamante ni moom la bay fii ci xalxuus baqia bu Seex Seydil Xaaji Maalik Si di sëg yi nekk fii ci Tivaouane dañ ko war a bay kañ lañ ko war a bay samdi bii di ñëw incha allahu rabbi waaye mbokk yi ñuy woo képp koo xamante ni am nga matériel li ko jëme ci rato lu ko jëme ci illeur lu mel ni peel lu mel ni lépp loo xamante ni semmiñ la wala lépp loo xamante ni rek mën naa dindi ñax wala mën naa dindi matt bi ci desit ñu ngi woo képp koo xamante ni rek da ngaa yor camion di ñëw di ci jiital nag ki nga xamante ni mooy président wu Euh, chauffeur camion yi ñu koy wax euh, nga xam mooy Moussa Niang ñu koy woo ci bis bi di woo bépp jullit foo waay ne ci àddina rek ñu ngi lay woo nga ñëw samdi incha allahu rabbi fii ci xal xalxuus bu Tiwaawan ñu wala ñu àndandoo en masse bay ko dañu bëgg nag bu ñu ko bayee ba pare tamit place jullikaay bi ñu ñëpp ñu ànd bay ko ba mu set ni mbalit mi def ko ci camion yi tuuri ji ko ci bis bi ñu ngi woo ñëpp fépp fu waay na ci àddina mooy nga am fi mbokk ak nga ñànk fee am mbokk ngay jullit te yëg ni fii say mbokki nawle ak say mbokki jullit ñoo fi tëdd ñu ngi lay woo incha allahu rabbi bu samdi bii di ñëw ñu ngi lay woo nga ñëw fii ci xalxuus lu Seydil Hadji Malick ci Tiwaawan ñu bay ko ci bis bi mu pere ci bis bi ñu tonni ko ci bis bi yóbbu ko waaye ñu ngi woo képp koo xamante ni nag am nga matériel ñu ngi lay woo ca bis ba ngi ñëw ci ñu bay ko samdi bii di ñëw incha allahu rabbi na ñëpp ñëw ku am matériel boo ñuy indil nag ñu ko indil ku am ndox mu sedd nag ñu ko indil ko am looy barkeeloo ci bis bi nag ñu ko indil ñu bay ko ba mu set ci bis bi incha allahu rabbi ñu ci woo ñëpp alxaaji Mbeg Jóob ak Mame Ndokh TV bi jërë ngeen jëf